alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala borom boobu ñu bind wërsëgal ñu di yokk ay xéewalam ci ñun guddeeg bëccëg ñu ngi seede na moom dong yeyoo ñu koy jaamu di seede na jaamam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki mu yónni woon ci ñun gannaaw loolu mbokk julit ragal leen yàlla ca jubal la nga xam ne moom mooy seeni wax su ngeen ko defee day yàlla dana jubal seeni jëf ca dana leen baal seeni bakkaar ki bëgg texe àdduna ak alaxira na xam ne yoon bi benn la amul bu ko ñaareel ca mooy na fas yéene topp yàlla topp yonent yàlla suñu borom yàlla moomu nga xam ne amul looy def ci kaw suuf loolee lu baax la wala lu bon la lu dul mi ngi jàkkaarloog yow xam ko gën jaa màggi xam su ko defee soo bëggee sa yiwu àdduna ak sa yiwu alaxira ngan la way fexeel di nekk ci li neex borom boobu jàll waala mbokk julit ñi ngi jóge ci jaamu yàlla ko màgg muy la nga xam ne chehru ramadan barke démb ñi ngi ko doon seenu ñu ngi noonu démb wéy na looli adduna yépp noonu la mel mboolem nuñ ca jaamu yal na yàlla nangul ñu ko mboolem nuñ ca juum yal na yàlla baal ñu ko waaye mbokk xam leen ne ab julit moom weeru koor day dana nekk weer wu mu gën a góorgóorloo waaye day xam ne yàlla bind ko woon pour weeru koor yàlla da koo bind pour mu jaamu ko te jaamu googu mooy dundam gépp te xamal ne mbokk julit amul benn bis ci booy dund ci kaw suuf lu dul mën nga caa fàgg lu la jegeel yàlla tabbel àjjana amul benn bis booy dund ci kaw suuf lu dul mën nga caa fàgg lu la jural merum yàlla tabbal la sawar loolu tax ba mbokk julit na nga doon ittewoo weeru koor noonu ngay ittewoo sa desitu dund gi yépp te xam ne lay tax doomu aadama bi mën a texe dëgg-dëgg mooy mu jub te jub googu du dara lu dul déglu ndigal yàlla def ko déglu tere yàlla ba ko daa di góorgóorlu wéetal sa borom yàlla subhanahu wa taala lii mbokk mooy mbir bi suñ borom day naam mooy texel ku ko neex adduna ak alaxira mooy toroxal ku ko neex adduna ak alaxira waaye nag suñu borom ca maandu téem texe googu da koo utal ay sabab texee di googu da koo utal ay sabab lay tax doomu aadama bi texee di mooy képp koo xam ne dem na ci géefér nuur na ci bakkaar pour yàlla day kii ku texee di la te it ab jaahil day moo koy xool di ko ñi waaye képp ko am xam-xamu àdduna dëgg bu ko seetloo dana xam ne kii ku texee di la président la ou milliardaire am naa mbokk julit texe boobu yàlla wutal sabab xamal ne sabab ba ca gën a màgg mooy nga wéetal sa boroom gëm ne moom rek mooy sa boroom gëm ne moom rek mooy yor sa lor sa njëriñ gëm ne keneen ku dul yow yàgg mooma yem ca yàlla amul lor amul njëriñ moomul misqaala zarra ci nguurug yàlla gi du àdduna du alaxira waaye gannaaw ba nga yëgee loolu it nga daal dina góorgóorlu taxaw ci ndigalu borom boobu nga xam ne mbokk julit texe doomu aadama bi suñ borom yàlla tënk na ko ci ñetti mbir yu am solo yoo xam ne ku nekk ci ñun war caa bàyyi xel mbir mu jëkk mi mooy xéewal gi la yàlla defal nga sant ko mbir ñaareel bi mooy natt yi yàllay dogal ci yow nga muñ ko mbir ñetteel bi mooy fakkasol yi ngay def ci bàkkaar nga sax di ko tuub ni ngi noonu mbokk julit amma bu dee xéewal yi xamal ne xéewal yooyu avant ngay judd sax yàlla waajalal na la fa nga war a dund ci kaw suuf waajal la ay way jur sa biiru yaay mu mooy la fa loo xam ne ay milliards adduna mënu ko jënd amul kenn ci yéen kuñ doon wax kaa ñu jox la milliard u àdduna te jël sa dégg jël sa gis ngay d'accord kon yaa ngi am ay xéewal yoo xam ne kenn mënu ko natt mbokk loolee dafa am lu dox sa digganteeg yàlla ci loolu la jiitu mooy nga yëg ne mboolemi xéewal yi nekk ci man ci yàlla la jóge gëmal ne day bët yéeg tànk yi ñu la ko yàlla wërsëgale kër gi xéewalam la oto bi xéewalam la soxna si xéewalam la jëkkër ji doom yi lépp lu mën a doon xéewal lu ko bawoo ci yàlla loolu mooy lu jëkk la xol di def ñaareel bi sa làmmiñ yi na ci feeñ képp ku la xam-xam ne yow yàlla dong ngay sant say xéewal santoo ci kudul yàlla jalla waala waaye it gannaaw ba la nga xam ne mooy la la yàlla may ci xéewal commencé ci cir yi jaar ci doom yi njaboot gi ba ci alal ji lépp nga def ko fi neex yàlla subhanahu wa taala képp ko am nii day am nga cir bu rëy ci texe ci kaw suuf amma ñaareel bi mbokk julit te loolu la suñu borom yàlla itamit wax ñu ci ne tànk yi ni nga may sant day maa ngi dolli tànk yéen a ngi mooy samay xéewal maa ngi wàññi seeni xéewal ca samay mbugal lu tar la ci yéen amma bu dee ñaareel bi mbokk nga xam ne suñu borom yàlla day moo ñu indi ci kaw suuf def ko ab tool bu ñu war a faggoo ngërëmam ngërëm loolu nag dana tege ci naam bu xéewalal la nga sant ko waaye naka noonu itamit mbokk ngërëm loolu itamit dana tege ci yàlla nattu la nga muñ nattu yi natt yooyu kenn mucc ci ballam tegoon ay yonentam tegu ko ku dul yonent ñi gën a tar nattu ci jaamu yàlla yi mooy yonent yàlla yi jàngal téereb yàlla bi nga xool fan la yàlla jaar ak ñoom ci seen jëmm ya fan la yàlla jaar ak ñoom ci noon yam leen bàyyee loon ñu sonal leen gën jaatar ci sonal ba am ay yonent yu bari sax dañ leen fara rey comme na ko yàlla waxe ci bani israil ci ne ana ñaata yonent ci la ñu rey looloo taxit yow julit suñ borom yàlla nee na xam leen ne danaa leen nattoo aw yiw danaa leen nattoo fitna na am xiiwali nattu la bu la yàlla di nattoo ba xam nooy def da ngay santam doo sant waaye gannaaw loolu itamit mbokk julit xamal ne suñu borom dana la nattoo léeg-léeg lu metti luy dal ci sa bakkan di dal ci sa njaboot di dal ci sa alal di dal ci say soppe loolee ba xam nan ngay réagir suñu borom yàlla gën a détaillé loolu daal di ne day ay yéen jullit ñi dimbali koo leen julli dimbali koo leen muñ te xam ne kat fokk danaa leen nattoo ci lenn loo xam ne ab tiitaange lay doon comme nam ko nattoo suñu mbokki syrien ya tey suñ mbokki irakien ya tey ak yeneen ñu dul ñoom danaa leen nattoo loo xam ne ab xiif lay doon danaa leen nattoo ngeen daan am alal ma xëy wàññi loolu dinaa leen nattoo jël leen ci seen i bakkan da ngeen bay ba yaakaar mbay mi ma ñëw yàq lépp waaye su boobaa na nga ba bégal ñi nga xam ne ay muñkat lañu heure bu nattu ñëwee ñu ne ñun kat ay jaami yàlla lañu ca lu mu yàgg yàgg ci yàlla la ñuy dellu suñu borom mu ñu mel nii day aw tagg dana jóge ca yàlla wàcc ci ñoom ñu mel nii day yërmaande dana jóge ci yàlla wàcc ci ñoom ñu mel nii day yàlla dana leen boole te jaamam yi nga xam ne ni leen a jubal yàlla yàlla boole ñu ca ñoom am naa ñetteel bi mbokk julit mooy ki nga xam ni heure bu ko yàlla nattoo mu def bakkaar day laa di gaaw dellu ci boroomam bakkaar boobu nga xam ni yàlla mucc lu ci sax ay yonentam amul benn doomu aadama lu dul dañuy def bakkaar su ko defee nag ka nga xam ne mooy ka texee di mooy ka fàtte boroomam ba muy def bakkaar fàtte boroomam gannaaw ba mu defee bakkaar waaye mbokk julit bu dee yàlla nattu na la ba bakkaar bi kat bi mu taxawee fàtte nga màggaayug yàlla fàtte mbugulu yàlla ba tabbi ca ngalawaay boo ca jógee it war ngaa bàyyi xel ma man lii su ma daayaay nag moom fu ma jëm nga gaaw tuub dellu wàcc sa borom borom boobu moom la ñuy nettali ci ne gaa yi nga xam ne ñooy yeyoo ajjana mooy ñi nga xam ne fu ñu defee bakkaar dañuy daal di wëlbati ko tuub seen bakkaar boobu ca mu ne ana kuy jégg na bakkaar ku dul yàlla ca mbokk suñu borom jalla wa ala mi ngi noonu amul benn bakkaar boo xam ne doomu aadama dana ko def lu dul bu tub ga sellee suñu borom yàlla dana ko baal borom bi yàlla yëpp ne mooy ñi nga xam ne day duñu sax ci seen bakkaar naagu ca ñii day pay ya gën a màgg mi ngi leen di xaar ca àjjana yi gën a kawe loolu tax ba mbokk julit nañu góorgóorlu di tuub di dellu ci suñu borom ak bakkaar yi lu mu garaaw garaaw xamal ne lu mu rëy rëy njëggalu yàlla ak yërmandeem moo ko gën a rëy doonte dañu moytu tuub goo xam ne nii daa war bis boo tuubee sax tuub ko te mooy tuub goo xam ne ci làmmiñ la yem naan sa sàngara ah safurla yàlla ñu yàlla jéggal di njaaloo ah yàlla ñu yàlla jéggal di def lu la neex yàlla ñu yàlla jéggal suñu borom mu ne déedéet naam yàlla koy jéggalale waaye suñu borom mu ne inni la gaffaarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa hdada mbokk tuub googu yàlla na caa teg ay chart te mooy ba nga xamee ne tuub nga dellu ci yàlla gëm nga ne lii nga doon def li wuroo ko def waaye nga wëlbatiku daa di dogu ci ne dootoo ci dellu jëf-jëf ju baax daa di cay sax ñu mel nii day suñ borom yàlla nee na fokk da nga leen baal mbokk ñetti mandarga yaa ngoo yoo xam ne amul benn jurit bu koy en taaro lu dul dana texe àdduna texe àllaaxira te mooy sant xéewalu yàlla muñ dogali yàlla jéggalu say bakkaar sa digganteeg sa borom loolu nag moo tax ñu war caa woote ndax jurit la nga nekk ci yiw da nga ko war a yéene say mbokk jurit suñu borom yàlla seddile ko ci aw saar daal di ne wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bis sabr nañu xam ne doomu aadama yépp day dañoo perte adduna perte alaxira ak lu ñu mën a am ak lu ñu mën a mel perte nañu la yàlla wax allahuma ñan ñoo ca génne mooy ñi nga xam ne gëm nañu yàlla jalla wa ala te gëm googu bokk na ca nga gëm mboole mi xéewal ci moom la jóge nga gëm ne mboole mi dogal ci moom la jóge nga gëm ne moom rek mooy jëriñ moom rek mooy lor waaye suñu borom it mu ne gannaaw ba ñu jëf la yàlla jëflu waaye di dénkante seen biir dëgg di dénkante seen biir la nga xam ne mooy ak muñ ngal la waaye mbokk nañu góorgóorlu delluwaat ci loolu suñ borom yàlla day borom mbaax la amul kenn kuy nekk ci njuumte wëlbati ko xool la neex yàlla nga toxu ca lu dul yàlla dana xool li gënoon a jafe ci sug dund gënoon la caa diis yàlla soppi la ko defal la ko xéewal amul kenn kuy nekk ci jaamu yàlla xëy xëy wëlbati ko dem ca mooy yàlla lu dul yàlla dana xool la ko gënoon a neex mu soppil ko ko defal ko ko fitna loolee ngalawaay ku nekk ci ñun na bàyyi xel bu baax ci loolu te xam ne teraanga bi gën a rëy bi yàlla lay defal jaam ci kaw suuf du ne da koo xëpp alal ju bëri wala da koo xëpp doom ju bëri loolu yéefir yaa ci ëpp la julit ñi waaye xamal ne teraanga bi gën a màgg bi la yàlla defal ci kaw suuf mooy mu saxal la ala siratul mustaqim nga sax ci def lu baax sax ci def lu bon sax ci bàyyi lu bon lii mooy teraanga bi gën a rëy boo xam ne doomu aadama dana ko am ci la nga xam ne mooy ci kaw suuf ngal la waay mbokk jurit nañ góorgóorlu xoolaat la nga xam ne yàlla subhanahu wa taala jot nañu koo may ci jaamu yàlla yeme na ko ak xiiwal gim la defaloon te jii boo demoon ba yàlla wërsëgal la kër ñaanutoo yàlla ñàkk kër soo demoon ba yàlla wërsëgal la boruwaay ñaanutoo yàlla ñàkk ko soo demoon ba yàlla wërsëgal la soxna bu baax ñaanutoo yàlla ñàkk ko naka noonu nit jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla wërsëgal na la kattanal la ba nga koy def sa digganteeg sa borom ngal la waay bul ñaan yàlla ñàkk ko del xamal del góorgóorlu te xam ne jaamu yàlla bi nga bàyyi xel daal di ko jox itte yéene daje ci ak sa borom amul benn jaamu yàlla booy sax lu dul mu ñoddil la yeneen jaamu yàlla comme na nga xamee amul benn bàkkaar booy sax lu dul mu ñoddil la la nga xam ne mooy yeneen bàkkaar mbokk lu mel nii la yeneen ci bàyyi salaam dana wax abdullah ibnu omar na koy abdullah waaye bul mel ne ma samba waay kii nga xam ne moom da daan taxaw di xiyaamu layli léegi xëy xëy rek daal di koy bàyyi nga la waay bul mel ne moom loolu it mbokk julit suñu borom yàlla lim ñi kàttan na doon ci weeru koor gi nga la waay nañu góor góorlu di ci bàyyi xel bokk na ci loolu mooy koor mbokk yàlla ku la ku yàlla kàttanal fanweeri fan nga tegalu ko di ko woor wax dëgg yàlla la nga xam ne mooy wor juróom benni fan du dara ci yow weer bii ñu nekk balaa génn nañu góorgóorlu jéem cee wor juróom benni fan yonent bi alei salaam nee na ku ko def day da nga mel ne ku yàlla saxal at bi yépp da nga ko doon woor li nga noonu at bi yépp da nga ko doon woor ci payu juróom benni fan ci biir weer bii ñu ngi noonu ci loolu la wax ci ne koo xam ne weer wu teru ñëw nga fexe ba woor ca ñetti fan da nga mel ne ku saxoon di wooru at bi yépp naka noonu mbokk julit ñaata ci ay doomu aadama ci ñun ñaata alal lañ génn ci weeru koor ngir sarxe ngir dogal ñu wooroon na am loolu baax na fa lool yiw la waaye nag góorgóorlu leen fexe weer bu mu mën a doonit ngeen am lu ngeen ci def ci ay jaamu yàlla yàlla mi leen ko wërsëgaloon ci weeru koor dana leen ko wuutalal na gëm jaama gi wuutu loolu la ñuy wax ci nawe fida ya ana ñaata ci ñun ñoo daan jóge seeni kër une heure du matin di ñëw ci jàkka ji di fi toog bay quatre heures et quelque ngal la waay rocceekul sa biir néeg ñu ngi noonu jagleel sa borom yàlla lu mag une heure de temps ci sa dund ci sa ngelaw yu guddi da ngay gis teraanga mun te passé loolu ay ana ñaata ci ñun ñoo uti woon kaamil alquran di jàng ay alquran loolu nga nekk ci pendant un mois bu weeru koor ñëw nga delloo kaamil bi déedéet fexeel même la nga doon def weeru koor bu dee ne yow yéggoo ci it nga def lu mu bon bon ba genn wàll nga bokk loolu nga fexe ba la nga xam ne amoon nga ko tubaab yi di ko tuddee des zati nga xam ne bu doon ci wàllu liggéey dañ naan di nga xes bañ fayeeku kenn waru ko dellu gannaaw jaamu yàlla it loolu la war a doon mooy yàlla wërsëgal na la ko man nga ko essayé nga ko sotti na kon dalay leer na boo ci góorgóorlu mu wëy kon nañ mbokk nañu góorgóorlu suñu kemtalal kattan te xam ne kat weeru koor nii mu demee bañu noonu it suñu dund gi noonu la mel yàlla ngi ñu dugal booleeg ñaari nit ñu ñuy teete muy guddi ak bëccëg ñi ngi ñuy teete di ñu jëmee ci suñu boroom di ñu jëmee foo xam ne bu ñu fa yeggee ca muy bàmmeel ah ak rëccu rek moo fay am ka nga xamee ni nii daana def lu baax dana rëccu cay waay ak a neexoon ma gën a yokk amma ka nga xam ne nag daa nekkoon ci lu bon kookee moom ak rëccoom mooy nekk toroxtaange nekk alkaange su ko defee ñun ñëpp ñu daal di góorgóorlu xam ne it texe gi ñu yàlla subhanahu wa taala dig ci jaamu yàlla yooyu waxul jaamu leen ma ba ñëw àllaaxira ma texel leen déedéet texe gaa ngi commencé fii ci àdduna amul kenn koo xam ne yaa ngi sax ci jaamu yàlla góor nga wala jigéen la lu dul yàlla dana la may dund bu tey yàlla dana dalal sa xol yàlla dana fiixal la nga la nga xam ne mooy sa dund na am lii dal ñeneen ñi mën na laa dal waaye nag yégin bu du bokk abadan ñu ngi noonu loolu yàlla teg ci nattu du yem ak ka nga xam ne gëmul yàlla deful lu baax na la ko yàlla di woye fana si biir xol du yem ak kooku abadan loolee kon di mbir moo xam ne ngalawaay nañu góorgóorluwaat ñu ñëpp ñu daal di ciy bàyyi xel bañ a bokk ci jaam yi nga xam ne dañuy dem ba àllaaxira doog a yëg loolu doog a commencé di rëcc mbokk occasion baa ngi nii ñu ngi koy dund ca itamit occasion la boo xam ne suñu xamoon na sax des na cinquante ans ñu war a góorgóorlu cinquante ans yooyu ñu def ko occasion jaamu yàlla waaye mbokk la gën a métti gën a métti mooy occasion la boo xam ne kenn ci ñun xamul fan lay yem loolee di mbir moo xam ne kon mbir la boo xam ne bu ñu war a ñaan suñu boroom yàlla mi nga xam ne moom moom jamono ca moom ñu yàlla nañu yàlla wërsëgal lum ñu wërsëgal ci dund mu wërsëgal ñu dund ko ci ngërëmam wërsëgal ñu ko ñu moytu la nga xam ne mooy ak meram gannaaw yàlla mba na ngeen xam ne suñu borom yàlla day moo ñu sant ñu naa di julli ca suñu yonente salallahu alayhi wa sallam mu ne moom day ak i malaakaam ñi ngi julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam yéen it julli leen ci moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ne amul kuy julli ci man benn julli lu dul yàlla dana julli ci yow fukki julli loolu it moo tax ba góorgóorlu leen gannaaw ba ngeen saxee ci julli sax ci ñaan bari leen lool di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li gën a mën a teggi tiis ca la bokk ci li gën a mën a indi xéewal ca la bokk ci li gën a mën a far ay bakkaar ca la bokk negam sa mbokk jullit bu mu mën a doon heure boo ko ñaanalee yàlla dana yónni malaaka mu ne amin yàlla na yàlla wërsëgal lu gën li nga ko ñaanal ana nag nga ñaanal ki nga xam ne moom moo jiitu ci jurit ñooñu ka nga xam ne mooy sang ñooñu ka nga xam ne moo gën a yee ci yow sa bakkan sa ndey ak sa baay kon nga la waaye bari leen di julli ci yeneen bi bari leen di jéggulu seen bakkaar di ñaanal seen bopp di ñaanal ña nga xam ne ñoo leen jiitu ci seen i waajur ak seen i wëllëri di ñaanal la nga xam ne mooy seen njaboot yal na yàlla booy lil ñu teraanga adduna ak teraanga alaxira mais ñu aafiye fi dunia wal axira yal na yàlla yërëm mboolem suñu way dawli yi yal na yàlla jubal mboolem suñu njaboot yal na yàlla wàcc jàmm ak aafiye ci suñu bakkan yi wàcc ko ci alal ji wàcc ko ci réew mi wàcc ko ci mboolem réewu julit yal na yàlla boole rafetal suñu mucc te ñun ñëpp mu dajale ñu ci àjjanaam yi gën a kawe allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab annar اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين